dañuy gën a doolee santat yàlla bu baax a baax a baax rek ndax li waral suñu daje tey mooy ñaan gu nangoo ñaan nag bu nangoo faaw ñu sant ndax suñu borom dañuy la in shakartum la azidannakum kon faaw ñuy sant bu baax a baax a baax waaye tey nag li waral bés bi mooy dañuy jub maanaam ouverture maanaam studio bi nga xam ne moom lañ doon waajal ba ba tey suñu borom jàppandil ko ci daraja yi Serigne Touba daraja Seydina Muhammad alayhi salaatu wasalaam muy muy studio bi nga xam ne mooy studio Big Deal in the house suñ suñ mbokk suñ xarit Serigne Gambie ak uh, Serigne Gora Seck Touba TV suñ borom subhanahu wa taala jàppande lépp ñu waajal boo xam ne nag bis boo xam ne bis bi dimanche la muy dimanche gi ñu ñëw waaye dañoo tey Serigne Cheikh Sidi Mokhtar Mbacke di suñu kilifa di suñu lépp ak Serigne Talla Sall mi nga xam ne moom mooy jëwriñu liggéey bi fii ci Argentine ginnaaw Serigne Yankouba ak Serigne Abdoulaye Laxat mi nga xam ne moom moom mooy jëwriñu jàngatu xasaay di fii sëriñ Jili ngi ñoom ñëpp ñu ngi leen di siyaare bu baax a baax a baax xam naa tey sëriñ bi daa ñëw pour defal ñu ñaan ci bërëb bi ndax lépp moom la wax dëgg yàlla kon xam naa dañuy jox sëriñ bi mu nuyoo ñaanal ñu sànni ñu ay kàddu dàggi ñu bu baax a baax a baax Cheikh Seydi Muxtaar ñu ngi lay siyaare bu baax a baax Mbàkke sant yàlla bu baax di julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di sant sëriñ Tuuba xaadimu rasul sunu yaakaar yi tey ak ëllëg nga xam ne amul lu moom yaakaarul lu moom bëggul lu moom di ñaanal sëriñ bi bu Cheikh Muntaxal Basir mu yàgg fi lool te wér ndax moom de ak yàggam fi njariñal jullit ñëpp la kon yàlla na fi yàgg te wér ba li mu yéene liggéeyal sëriñ bi lépp mu eggale ko ci sagoom te nu ànd koog moom bu loolu weesoo ñuy sant taalibe sëriñ Touba yi nga xam ne ñoo nekk ci jaspora bi rawatina fii ci Argentine ak Brésil ñu ngi leen di sant di rafetlu seenu taxawaay ndax ay ndaw lañ yoo xam ni liggéeyal Sëriñ Tuubaa rek sëriñ bi rek moo leen ñor ñuy ay jàmbaar yoo xam ne liggéeyal Sëriñ Tuubaa liggéeyal Sëriñ Tuubaa bañuñ ci dara tey nag sunu jataay bii di jataay bu mbégte jataay boo xam ni ak jataay sant yàlla la cant goo xam ne am na tàmbali waaye amul fu muy yem di ñaanal waa Touba TV Argentine ndax ñoom ay ndaw lañ yoo xam ni leen war lépp ñu ngi ci muy liggéey ak jaamu yàlla te lii ñuy taxawal nii tey bis bii nu teewee ni innovation bu mag a mag a mag a mag la ci bépp ndaw boo xam da ngay tukki ndaw luy tukki dafa war a di natt boppam saa su ne ci lim defoon daaw bu ren jotee mu xayma lam defoon daaw xool la kay ay erreur ak ay ay ay ay ay ay ay ay fakk-fakk mu jëm ko faxas bu mënee nekk jéem a xool yokkute jéem a xool la ca kanamam lii ngeen def nii nag muy studio bii nga xam ne moom ngeen war a dalal war koo ubbi incha allah ñu ngi leen di ñaanal ci barkeb Serigne Touba mi nga xam ne lu mu yor du jeex yàlla na bokk ci télé yi mag yi nga xam dañu leen di lim ci àdduna bi waaw yàlla na bokk ci télé yooyu yàlla na ci sëriñ bi mën na ko te am nañ ci rafet njort ndax ku xool macha allah bi mu juddoog léegi ni mu doxee nga xam ni kon loolu wax dëgg yàlla ay day wane ne ay ndaw yu déterminé wu yu am pas-pas amuk dogu xam liñ bëgg te dox jëm ca ah, ah, moo tax mu mën a yegg si fii ndax ku ne xam na ni bitim réew xat-xat yeeg yëpp boo ko bëggee boole ak eh, ak liggéey bu mel nii loolu dogu rek moo tax nga man nga man nga mën caa yegg fa nga bëgg ndax ku ne xam na ni dañoo dañoo bàyyi njaboot Sénégal te ñooñu daanaka duñ la xaar mukk toujours rek yow la ñuy yaakaar ci ci la war a dem lépp kon boo ko bëggee booleeg beneen liggéey di boole liggéey ak liggéey bi kon loolu moom ñu ngi leen lu baax ngeen am ci ngërëmal Serigne Touba te am ci ndam lu kawe seen njott am nañ ci rafet njott bu baax nag di gërëm taalibe Serigne Touba yi nga xam ne ñoo ne ci réew mi yëpp euh, ci njiital Serigne Yankoba Gueye mi nga xam ne mooy jëwriñu Miftaahu daayira Miftaahu Nasri te sëriñ Mor Talla Sall mii nga xam ne moom moom lañ toftal ci moom toog nii suñu wet ak mboolem taalibe yi nga xam ne ñoo seq liggéey bi yëpp ñu ngi leen di sant di leen gërëm ñun nag euh, ay ay ndonga lañu xeebu rek yoo xam ni seen mbokkum taalibe mu nekk yéen fii di liggéeyal Sëriñ Tuubaa di leen ñaanal nag li ngeen bëgg lépp ngeen am ko ndax su ngeen yokkee rek Sénégal yokk su ngeen yokkee jullit ñëpp yokk su ngeen yokkee taalibe yëpp yokk kon ñu ngi ñaan ngeen yokk ba yëg rek ci barkeb si Ahmadou Bamba Xaadim Rasul te it euh, tàmbali gi ngeen di tàmbali yàlla na doon tàmbali goo xam ne day yëkkatiku di feeñ ni Lamp Fall feeñe ci barkeb Serigne Touba Xaadim Rasul asalaamaaleykum wa rahmatullah jërëjëf Mbacke kàddu yi rafet na lool am na solo yal nañu yàlla suñu borom subhanahu wa taala defal dégg ak topp dañoo amaat fii tamit sunu gan Serigne Talla Sall nga xam ni moom ginnaaw Serigne Yankuba Gueye moom moo topp ci jëwriñ ji muy Serigne Yankuba Serigne Talla Sall moom it ku baax am murit ku mën a liggéeyal Serigne ku ne ci liggéey Serigne Touba nga ko xamee kon Serigne Talla ñu jox ko moom it mu sànni ay kàddoom ak ay kàddu ñaanam di jaay Seexul Xadim eh, aouzu billahi min asheytan rajim bismillahi rahmani rahim alhamdulilahi rabbil alamin suma salaatu wa maulana muhammadin lil makin asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakatu mbokki jullit yi fi teew yépp mbokki taalibe yi ñoo ngi leen di nuyu kenn ku ne ci turam ak santam nuyu boobu nag ak ziar boobu ñu teg ko ci loxo suñu kilifa gi nga xam moo toog suñu wet di sëriñ Cheikh Matalay Mbàkke di suñu kilifa di suñu xarit di suñu lépp di nuyu yéen waa group bi nga xam ni yéen a séq liggéey bi e, di ko teg ci loxo suñu Gora TV ak suñu Gambie ñu jottali ko ci mboolem group ñu nekk ci groupe bi yëpp ginnaaw bi ñu sant yàlla nag julli ci sunu sang Seydina Mohamed di sant yàlla bu baax nag ci lu am solo li nga xam ni moom ngeen def ndax ñun dañuy rafetlu rek seen liggéey saa yu ne ndax liggéey bi ñun ñëpp ci lañ bokk ndax gis nañ ni liggéey bi eh, moo ngi tàmbalee fees 2016 màggal 2016 booba léegi ñoo ngi leen di topp mbooloo mu bari di leen topp waaye cant ak ngërëm gi nga xam moom lañ ci moom lañ moom lañ ciy def pour jëmale ko ci yéen dafa nekk loo xam ni maanaam bi mu tàmbalee ba léegi ay at la yaakaar naa ñetti at ba ñeenti at mat na ko kon amul gisuñu ngeen def benn erreur de communication te loolu mooy li gën a jafe léegi ci communication parce que adduna bi ku ne gis na ni mu lëjee télé yi wax li jaxase nit ñi li ci gën a bari ci liggéey yi am na yoo xam jàpp nañ loolu mooy doxal seen tele yéen nag bi yàlla doxal yéen bi ngeen ñëwee seen liggéey ngeen seetal ko wicc leeral ko nañ teg ko ci njub bañ cee topp seen bakkan bëggu ci lu neex kenn information yi ngeen di joxe ak mboolem mbokk yi nga xam ne da dañ ciy wax yëpp mosuñoo topp ba gis yéen ngeen def ci benn erreur boo xam mën na ni lii maanam erreur la boo xam ne nit ñi bàyyi nañ ko xel kon loolu rek loolu dafa doy sëkk mboolem ku nekk ci réew mi maanaam jaajëfal leen ci ndax loolu du liggéey bu ndaw te tamit lii li ko li ko li ko def maanaam yéen seen jom la ak seen positif ak seen taxawaay parce que tamit bu fekkoon da ngeen a sañ ci mbir mi liggéey bi maanaam teg ci ay wax teg ko ci ay tappale ay caaxaan kon fi ngeen agsi nii du ngeen fi agsi ñaareel mooy kon nit ñi bàyyi xel gi leen bàyyi xel nga xam ne adduna bépp koy topp Argentine TV toujours sa dem information yoo xam ne sax ñi nekk Sénégal ñoo nga xam ne kon pour loolu day wane ni rek ñiy topp maanaam information yi am na solo ci diine ji ak ci eh, xew-xew yi nga xam ne am ci réew mi yëpp ak yi yi nga xam ne am Sénégal mbokk yi di ko topp kon loolu moom dañ leen ci jaajëfal bu baax di wax tamit ni yéen ay royukaay ngin ndax maanaam eh, li tax ngeen ay royukaay mooy nit day am vision maanaam da ngay tàmbalee fii maanaam am programme maanaam nit de am programme ndax suñu borom dafa bokk ci li muy dimbalee doomu aadama mooy mu xam fi mu jëm mais fi mu toll nii képp koo xam ne amoo amoo amoo décision jëmoo fenn destination boo ko amul rek maanaam mën nga tardeel sa bopp ci fànn yu baree baree baree baree bare waaye nag destination mooy mooy mooy nga nga yow nga bëgg dara mooy nga tàmbali lii waaye nag damaa am yéene yóbbu ko fii kon ñun vraiment loolu dañ leen ciy jaajëfal di ko di ko rafetlu bu baax di ñaan Sëñ mi nga xam nag maanaam euh, ñun moom lañ yaakaar ëllëg di suñu lépp ñu di leen ci ñaanal mu gën leen a jàppale gën leen a gën a yokk seen xam-xam gën a yokk seen xereñ gën a yokk seen i matériel gën leen a taxaw ba li ngeen yéene ci maanaam eh, liggéey bi yëpp suñu borom def ngeen am ko ni ngeen ko bëggee su ko defee bu loolu loolu amee tamit wax dëgg yàlla ñuy sant mbo mbokk yi nga xam tamit dañuy rafetlu di di ñëw ci ci ci ci daara ji ndax ku ne xam ne liggéey suñu tubaab yi taxawaay yu am solo ngeen ci def ndax vraiment fun ci toll ak information ni jàll yëpp wax yàlla loolu rafetlu nañ ko yaakaar naa man loolu daal xam naa laa ci am lu may wax di wax ne yéen ay royukaay ngeen vraiment ñun ñoo ngi leen di soññi di wax ne daal moom fi ngeen nekk daal foofu baax na moom waaw day ñaan suñu tuwaay yokk xewal yi nag ndax studio bi day ñaan mu dem ba màgg comme ni ko sëriñ bi ñaane dem ba dégg ci adduna bi yëpp ba maanaam leen di bàyyi xel rek maanaam incha allah mu gën a yokku gën a loolu tamit ñoo ngi leen koy ñaanal baax a baax di wax ni eh, xanaa li nit da ngeen gën a sellalaat liggéey bi rek maanaam teg ko ci yaa ayyuhal lazina amanu in jaakum faasiqun bi naba'in fatabayyanu rek waaw te yéen foofu ngeen nekk nag waaye dañ leen gën a ñaaxal ngeen nekk foofu rek su ko defee daal yaakaar naa lépp loo xam ne bëgg ngeen ko teg ko foofu rek maanaam di ngeen ko am moom daal fi ngeen nekk bu leen bu leen dugg ci caaxaan bu leen dugg ci tappale wala ngeen bëgg teg bët ba tax ngeen di dugal loo xam ne waru leen ko dugal loolu moom dañ leen ci soññi di ci soññ suñ bopp ndax loolu taxut avancé maanaam dëgg moom moo jëkk moo mujj fi mu toll dëgg boo ci awee ba nit ñi miin la ci rek maanaam dañ ciy ànd ak yow dox dem mais ay tappale boo ci nekkee yàgg-yàgg day feeñ moom dara dañ lay mujj bàyyi rek te nag xew tey suba nga xew yi amul njariñ te loolu li koy waral ay tappale dong koy waral mais nit ki su nekk ci dëgg teg ci tànkam sax ca maanaam moom yàgg-yàgg rek maanaam euh, lépp day leer ci boppi nit kon ñun ñoo ngi leen di jaajëfal ci initiative bi ak post post bi ak positif gi ngeen ko seere ak maanaam bàyyi xel ngeen di bàyyi xel sellaay gi loolu vraiment ñoo ngi leen ciy jaajëfal bu baax di leen di ñaan suñu borom mu yokk xéwal ak tawféex yi ak mboole mbokk ci ñëpp di nuyu waa réew nag di nuyu mbokk yëpp rek si njaaxum suñu jëwri nag ñoom suñu bàmba mbokk yëpp rek ak ñun àndal liggéey di nuyu suñu jiw ji suñu wet di bàyyi laat di jiite xasi kuréelu xasida bi moom ñoo ngi koy nuyu baax ak suñu jiile mbokk yëpp rek asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu